asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, xanaa ñu dellu du sant yàlla euh, di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax euh, ten bokk nangu ne yàlla askanu Sénégal la àndal yàlla ci boppam askanu Sénégal la àndal nii yàlla boole tey nu mbokki bopp bokk réew bopp réew mi luñ mas a foog Bruce Massa yaakaar waaye suñu bëgg-bëgg tombo ak dëgg yàlla def ko Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne kan ne alhamdulilahi rabil alamin bi mu duggee présidence de la république nit la koo xam ne yàlla may na ko xam-xam yàlla da ko may xam-xamu zahir ba pare may ko bu baatin te Jomaay moom mu fekk si présidence le président yi daje nañ ci kaso bi di yendu ak a waxtaan te kenn ku ci nekk am nga xam-xam boo xam ne bu ku ci jege sa moroom mu xeeñ la tey bu fekkee ne le président tànn na ko dugal ko présidence jox ko fa ay responsabilité ñu ñi nga xam ne ay xariti Cheikh Omar lañ ñi nga xam ne jàppale Cheikh Omar lañ di jàppale Pastef ak programme bi sun xol da ci sedd guy da ci sedd guy Cheikh Omar nag nit la ko amuti caaxaan Cheikh Omar nit la koo xam ne euh, dafa nu muy duggee ci yow ba tax na lépp loo séq ak moom lu ngeen séq rek na doon dëgg ndax Cheikh ci boppam kenn mësu koo waar kenn mësu koo waar ndax lu mu wax ñu mën a dellu tey ku mel noonu bu ko président Diomaye jëlee teg ko ci wetam defe naa ne kulli ku dib sénégalais wala nga pan africaniste wala nga dib julit ba ci chrétien war nga dellu ne alhamdulillahi rabbil alamin cheikh ñoo ngi lay ndokkeel di ñaanal jàmm jàmm képp nga mën a am ndax nitug jàmm nga ku la bañ wala mu mer la dëgg dong la la meree te bu ñëpp toogee kenn ku ne wax la nga waxoon yaay ni ci dëgg ku mel noonu nag buñ ko yàlla indilee ci wetu président de la république ca dëgg-dëgg man jaaxleetuma jaaxleetuma de te leen ziyaare yi ñëpp nag bëggoon a konte ci waxtaan wi euh, bëgg naa wax tuuti ci Touba bu ma jógee ci Touba ci ndox mi nga xam ne dañ koo téye te teguñu ko fenn waaw bu mu fa jógee aussi danañ wax ci président Ousmane Sonko ndax jot na mu dem France àdduna bépp nga koy xaar àdduna bi nga koy déglu ci discours bu nar a wax France te France man taqal la xam ne euh, comme dañuy tàggaloo heure bi jot na ñu toog waxtaan moo tax Ousmane ñëpp a xaar kon bismillah ah, ñu door waxtaan wi asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañu bokkoon del si rek comme ni ko faral di defee ah, waxtaan jëmee ko ci réew mi ndax ko amul lu mel ni mbubb foog nga sol ko ñun amuñu lu dul Sénégal foog Sénégal ñor ñu te bokk jóg taxaw ci réew la moo xam ne coono bi yàgg na booy ma ne ca njëndum jàmm ba nëgë ni ba nëgë ni noppali dafa jot dafa jot askan bi jóg ànd ko ñi nga xam ne ñoom lañ tànn pour jiite réew mi ñu ànd defar tabax ba temps ab Sénégal fu mu nekk fu ne sa kàddu soxla nañ ko la nga xalaat soxla nañ ko ndax xalaat yu bari yooyu kat mooy dajaloo doon aw say woo xam ne ay argument la ñu war ko ànd tasaare beqi ko seet ko seetaat ko génn ci ay solution yoo xam ne bu ci réew mi jaaree dem ñu dellu sant yàlla ban bokkee ñun ñëpp àndandoo ne réew mi doxut ñun ñëpp ñu bokk àndandoo ne il faudrait un changement et ce changement la lu war a exister la homme politique nga xam ne ñoo gañe réew mi loolu lañ bëgg askan wi ci seen bopp loolu lañ bëgg ñu koy le changement une rupture globale une refondation nationale tey ñu bëggoon a wax jëmee ko ci ndox mi nekk Touba d'abord buñ jógee ci ndox mi nekk Touba euh, danañu ci teg tukki bi nga xam ne dafa jot dafa jot le président de la république président Diomaye Faye wala mu délégué son premier ministre ñu jàkkaarloo ak waa France dafa jot pour ñu toog ak Macron ndoxum Tuuba mi euh, impunité gisaguma ko li ndox mi fukki at ay nit naanuñu ndox naanuñu ndox ña def loola tribunal militaire moo jaadoon ci ñoom waaye sama yaram yëgul ne daa ñu leen condamné parce que Mbàkke lañ sant wala Busa ñi nga xam ñoo téyoon ndox mi te Tuubaa am ndox lu toll ci fukki at wala juróom-ñeenti at suñ bokki sanc-sancaani bu nu ñoo jot ci ndox mi loolu ñu di leen koo jaay di leen koo jaay dama ne ña defoon loolu wumpul état bi wumpul kenn ñi ko def nañ leen jàpp téye àtte leen impunité baaxul Touba di dëkk boo xam ne Serigne Touba Mbacke coono bi mu ci daj ba taxawal dëkkam boobu defe naa ne ku fa doon jaay mango ku fa doon sax di ca am dara nga respecté dëkk bi waxuma laaj sañ sañcaan yi nga xam ne dañoo dëkk ca Kajoor maral lu sëñ Abdoulaye fi sëñ nekkee maral wi amoon tax ñoom ñëpp ñu takk seeni bagage daw làq Touba def ne bu dikkee daa ñu doon toppatoo daañu toppatoo seenum doom ci njàng mi daañu toppatoo ci paj mi waaye dara amu ci fukki at yi def Touba ci ab coono lañ ko def kenn taxawu leen kenn dimbiru leen ay des lañuy lekk ak bësi sëriñ seeni doom mokkal alxuraan di dawale saret wala ñu dem ci dëj di wàcce kaamil war faa mën a jële dara mbir ni mu demee loolu ngay wax bu ko defee ñi nga xam ne ñooy def analyse yi war caa mën sukkandiku sukkandiku boo xam ne daa daañu mën a indi dëgg le président Diomaye li dëng Touba bari na la yàqu bari na te teguñu ko fenn nag fenn fudul sant wi laa sant wala di woy sa maam torturer ay doomu aadama mënta passé robinet yi nga tëj ko fukki at fukki at nga tëj robinet yi amul benn taalibe bu mën a am ndox te da koo jënd wala nga naan ndox mu ndox mu ñuul mi lu mel noonu boo amee ci ab dëkk ña defoon di rombanteeg waa dëkk bi ñun ñu xam leen damay loolu du changement ak sant woo mën a sant boo laalee ci loolu yoon teg na la loxo xoolee rek ndox mi mu ubbee ñu mel ñu mus a gis ndox te dëkk Tuubaa ñu mel dëkk mus a gis ndox di yuuxu di jubilé di fecc fekk benn famille moo ne kapp robinet yi pour di ko jaay loolu tegul fenn mairie bii ñu teg ci loxo sëñ Sidi du dëgg du yoon sëñ Sidi warta yor mairie municipalité bi yoonam nekku ci waa Touba ñoo ko moom nañ ko doxal seenu doxalin wut ay city council seet ñoo xam ne ay délégué de quartier ay ñoo xam ne ñoo représenté askan wi toog di ci wax waaye sëñ Sidi yoonam nekkul ci mairie bi c'est un citoyen comme tous les autres citoyens sëriñ si di amul droit teg fi kenn kenn la fi amul droit teg mais citoyens yi ñoo seet que leen doy ñu waxtaan ba déggoo ci teg ko fa mu nekkal leen fi nekkal fi askan wi la woon dootu am président Diomaye noo la gën a xam li am ak li fi nekkoon noo la gën a xam ndax ba réew mi yàqu judduwoo kon ambari luñ ci fekkee waaw képp koo xam ne inval nga ci ndox mi amoon Touba ba tax waa amuñu ndox fukki at ñu la yóbbu travaux forcés nga tëdd ak sant woo mën a sant kan dellu waxante dëgg xam ne dëkk bi loola koy defar fiit kenn du amatul ci dëkk bi dëkk bi ñëpp ay wote ab sénégalais fu mu nekk am na droit de vote ñun xam na droit titre foncier mooy lan xam nañ ko fii Touba yemoon it ak li Touba bi daggaloon sëñ Touba xam ne ñaata mètre la la ca ab laaya du forcé dolli ko ca xam nañ ko kan dellu doon ay nit doon ay sénégalais xam ne réew lañ ko war a bokk defar nu bokk defar ko ci kaw dëgg waaye nii ñu def robinet nii tëj leen ah fatt kanaal yi Touba gépp di taa akum ndox te nañu sant Mbàkke ñu ngi ci biir business bi lu doy waar a ngi noonu hôpital Touba ngeen waaw ñu sant Mbàkke ñu jël xaalis bi fi nekkoon ay milliards dañ ci viré jël xaalis boobu il faut président Diomaye dafa war a leer ay nit lañ kom ñun mënuñu paase ay doomu aadama te li ma yàlla sant sant leen ko sant la ko yow jomaay moom la sant kull kuy xalif général ci Sénégal li yàlla santaani ku ko ci deful ku ko ci deful yàlla ci boom da nga jotee ak moom comme ñoo bokk lépp war na mën a ànd ci lépp bokk doxul dëgg kenn ku nekk bokk jariñu waaye ndox bi ñuy tëjoon Touba ñi ko tëj ñi ko tëj xam nañ leen xam nañ jo président Diomaye benn minute la soxla pour xam ñëpp moo tax ñoom ñëpp nañ leen àtte nañ leen àtte bu denc jote ñu denc leen parce que du ay teggin fukki at nga tëj ko ab robinet ba nit ñi naanuñu coow li ku ne ko dégg wax ñëpp ko dégg Ablaye Wade doon na fi fen naan le canal di Baol dañ koy indi ana canal bu fi indi le canal du Baol est-ce que indi na ko ndox mi soriwul tuuba est-ce que indi na ko lépp doon ay fen ak i mafia ak i yi ah un porte-parole boo xam ne ah APR la bokk dëgg intéressé wu ko a ak bakkanam a ko intéressé te kenn ku ne xam na ko moom dem na ba réccu alal jim am maanaam kër mu am da ko réccu ci koom nekk kilifa diine ngay wuyee soo bopp bu ngeen nangul doon ay nit du ngeen ma sa ay nit bu ngeen bëggee am ci taalibe bàyyi citoyen da ngeen torox billahi wallahi bu ngeen nangul doon ay citoyen yi normal torox da ngeen ko def waaw santul kenn muy bérému ci suuf see karaama ko yuuxu waaw loo xalaat sa bopp la te sa bopp ngay nax waaw kan boo ko waxante dëgg sañ sañsaan ñu respecté leen jox seen wàll ban déparé Kajoor daw ñëw dafa am lu ñu fi si ku leen toppatool seenu njaboot ku leen joxe tool ñu liggéey ah ku leen def loolu loo xam ne lu am solo la ak ku leen jàngal diine ak ku leen aaral seen diine ak sunu njaboot waaye bi ndikee Tuubaa gisuñu ko gisuñu ko màggal ba màggal la wër sébbu yi di for ay lekk di ñaanantoog ak a dajale ak a dajalewaat doon ay doom yu gor yu sant Jóob Njaay Jaxate Dramé ñu ne nga foofu ci àll boobu ñuy daj leen fi mel ne ay mbaam te gën ñu leen dara gën ñu leen judd ñu leen day gën ñu leen bàyyi wax naa leen ko ba tey ñu baree baree bari sant wi ñu sant ndey ju rafet tax ñu sant ko seen ndey bu bakkan bi noonu ci jébi du yàgg mukk ban sant Mbàkke dama ne seen nopp ndey bu tafoon ci jëbi du yàgg mukk man sant sant bi kon ab taar ab taar moo leen ci boole nan respecté nit ñi te bokk xam ne ñëpp ay Sénégal la ñu ànd defar te kat defar rek moo man defar am solo waaw du dëgg du yoon ñi te yoon ndox mi daal te ndox mi ne leen yeew ci ak buum atte leen waaw kon ñu jàll ci le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko Euh, li ko nit ñi xaar te àdduna bi di ko ci xaar mooy mu dem France dem Paris jot na ndax liñ ko toppee lépp lépp lépp la ca ëpp suñ diggante ak France la moo xoon lu am solo armée française day dem ba tey armée baa ngi taxaw li ci dëkk bi li am solo encore ñëpp gëmoon ko Afrique yëpp yaakaaroon mooy une monnaie national maanaam ñu dàq CFA mu jógee fi ñu créé suñu xaalisu bopp beneen ba ca des mooy investissement yi nga xam France def na ko ci réew mi di am quatre-vingt-dix ñu ñuy am dix pour cent Ousmane daf na woon bu jëlee réew mi da ciy taxaw gaal yi taxawaalu fii di napp ak di fii ak di tooñ day arrêté napp mi nit ñaa ngi toog di déglu dossier bu legal bu wane ne dàq na nappkat yépp fekk ñaari at réew mi kenn du fi napp. Ousmane dafa am lu ñu diggoon te loolu France képp la mën a lijjanti ko àq yi nga xam ne France ameel nañu ko ak coono bi mu munu teg depuis l'esclavage la France a une demande d'explication il faut mu leeral lu ko ci dugal ak lu tax mu def ko suñ tool yi nga xam ne luñ fi am di ko utiliser lu ca ñor France da dagg yóbbu lu demee ne gerte depuis 1927 ak léegi li fi bay ci ay yu gerte kenn xamut nu mu tollu lépp France da ko ton def ci industrie am ba tey noo ngi nii amuñu litre dawlin buñ toggee chinois yi ñu ne jaay dawlin gu bon kon le président Ousmane Sonko ñu ngi lay soññi ak loo mën a jàpp na la Jomaa yabal nga dem na la président Jomaa yabal nga dem boo demee nga toog ak Macron parce que Jomaa yi du moroomam Jomaa yi du moroomu Macron yow mi yaay dem boo demee nga toog ak moom waxante kook moom lijjanti moom leer nañ ci boppu nit ñi fi mu ne yow président Ousmane la Russie yow doo lay xaar nga dem France mu xool ban décision jël pour Afrique les pays du Sahel ñëpp ñi ngi xaar nga dem pour ñu dégg la ngay wax pour ñu xam seeni position ñu koy doxale la BCEAO yow lay xaar pour nga dem France pour mu xool moom nu muy doxalewaat la CEDEAO yow la ñuy xaar pour nga dem France ñu déglu sa discours xool li ngay wax ba xam ñoom daanu mën a xam nu ñuy doxalee ak nu ñuy ànd ak Sénégal dama ne la Chine ci boppam la Chine sag dem France la ñuy xaar boo dee ban la ba noppi xoolaat say projet daa ñu xam ban position la ñuy jël dama ne la communauté européenne sag dem France la ñuy xaar bu déglu sa discours seet nan ak nan la ñuy doxalee ak le Sénégal kon dem France dafa bokk ci farata yi il faut nga dem France toog adduna bi déglu la nga wax loo xam ne bu la ko laay ëllëg maa ko waxoon waar leen ma dégg la ma waxoon lañ fa waxoon de ñun xam nañ ko moo tax ñu ànd ak yow France dégage et la France doit dégage kuy ànd ak nit lu mat téeméeri at te amoo loo ndékkee ba ko jot na ban àndee France léegi ci njëndum jàmm ba nëgëni ba nëgëni amuñu lu ñu añee tey te lépp loo am nañ ko France moom quatre-vingt-dix ñu moom dix pour cent loolu dafay dakk dafay dakk pour mu dakk nag nu yaakaar ne dakk na te dakkal nga ko mooy nga sol say dàll dem ba ca Macron nga toog ak moom li ne ci yow nga wax ko nu dégg ko àdduna bi dégg ko partenaires yi dégg ko Soviet Union dégg la Chine dégg ko les Américains dégg ko yow la ñuy xaar de pour nga dem France boo discours yëpp ñu def seen i analyse xool ba xam ne jar ngaa àndal wala déet buñ lee dëgg naaw mukk la nga waxoon rek France dégage la France doit dégager il va dégager c'est ce qui nous intéresse moo tax sax dem France sax dem France jot na sëkk jot na sëkk ginnaaw ba le président Diomaye demee Mali eh, demee Mauritanie ah dem Abidjan ah dem Guinée yow sax dem dafa jot takkal say daal nga dem te mu la ne tout le Sénégal est derrière toi te mu wóor la ne lépp loo waxoon nag Sénégal yi xam nañ ko li tax ñu àndoon ak yow it moo tàggoo ak France France dégage li nga waxoon ak ñun ba jaral nu bàyyi yëpp suñ kilifa yi diine yi xalif généraux yi dem ànd ak Macky ñëpp dem toppi Macky Sall nun nu weddi leen ànd yow ngir leen une rupture un changement tey bu ñu weddee ñooñu ba ànd ak yow ba ndam di tegu ci sa loxo dama ne amul kenn kuy nelaw kuy nelaw te yàkkamtiwul yeewu ba jàkkaarloog yow nga jàkkaarloog Macron di wax am nga fit wi am nga xel mi am nga njàng mi te la ci dañoo tooñ réew mi ba pare tooñ la defe naa foo looy tiit néew fa moo tax lu mbir mi gën a jàmp moo nu arrangé demal France jot na demal France jot na bu ca kaname rek beneen yoon daa jox ci mbay mi ndax agriculture dafa nekk lu am solo ci am mbay ci lañ sukkandiku pour dund ci am mbay ci lañ sukkandiku pour suñ jur gi lekk ci am mbay lañ sukkandiku pour garab yi nga xam ne ci la ñuy fajoo ci am mbay lañ sukkandiku pour def exchange commercial pour mën a développer suñu finance kon mbay mi prochainement daanu ci wax waxin wu am solo waaye mu am solo woo xam ne sénégalais bu ci nekk boo ko dégloo danga xam ne kii lii mu wax dëgg la ndax ñun ñëpp kat ay baykat lañ ndax liñ dundee moom lañ te doomu aadama la muy lekk moom la te li ñuy lekk lépp am mbay la ba di ko bay la suñu bopp nag pour doon liñ doon amul lenn lu ko gën maanaam fexe ba li ngay lekk doon yow te li ngay lekk nga di ko bayal sa bopp bu ñu yàlla dimbale ba seen autosuffisance mat daanu am jàmm te mën nañ ko mën nañ ko napp gi napp gi rek mën na dund réew mi mën naa am alal ju dul jeex kan ne les bateaux européens toog leen Europe ñun Sénégal yi am nañ seeni bato daa ñu napp ci jën luñ napp jaay leen ko lu napp seen leen ko yooyu bu ñu fi ñëw di napp léegi ñu doon milliardaire léegi réew mi naat ceeb bi ni lekk ceeb bi ni lekk suuf su ko bay am nañ ko ndox mu ko suuxat am nañ ko am nañ ay nit ñu ko bay am nañu ko bay mais transaction bancaire bi banque yi def ci LC la décret irrévocable yooyu France di joxe moo bëgguñu ko bay ceeb ndax ci la ceeb bu dikk France a koy fay par devise les décrets yooyu France daf ciy am ay milliards la ciy am moo tax mosuñoo bëgg nu bay ceeb te ceeb bi Sénégal da bay moo gën ndax boo ko lekkee doo jabet te day wàññi sukkar lu mu nu ñuy jóg ci mbay mi toppatoo suñu bopp mais yëpp nag balaa mën a ne balaa mën a ne le président son Sonko sol aw dàllam dem toog ak Macron ñu def benn divorce boo xam ne ñu def benn divorce boo xam ne tous les sénégalais ak fu Sénégal nekk da xam ne ñii kat doon leen sëwee tàggoo nañ kon président Ousmane ñoo ngi lay ñaan nga corriger Touba ndox ma ña ko doon jaay nañ leen jàpp nañ leen jàpp waaw toog ak France gi foog nga toog ak France yow dong la àdduna bi xaar la monde entier yow la ñuy xaar demal nga toog ak président bi wax ak moom lu leer te lépp looy wax nag na la biir ne adduna baa ngi koy déglu adduna bépp yow la ñuy xaar pour mën a changer seen politique créer yeneen format politique entre le Sénégal ak yeneen réew yi waaw booy dem suba Chine waa Chine dajaloo booy dem suba waa Russie di dajaloo te dañu soxla la Russie dañ ko soxla dañ ko soxla amul nëbbu dañ ko soxla Russie nan signé ak ñoom accord de défense nan def moom ni ko ñëpp defe waaw bu ci am kersa bu ci am loo ragal bu ci am looy tiit la Russie ak le Sénégal nañ signé ay accord de défense te armée française bi takki bagaasam man yaakaaroon na les premiers quarante huit heures armée francais day dem yoonam mbir mi xaw naa yeex te sàcc yi nga jubli ci ñëpp képp ku jël alal réew mi ak ko mën a doon muy suuf ak lu mën a doon nan la teg loxo ak képp ku fi dëpp kees ak kees nga dëpp ak lu mën a toll bu dee juróomi dërëm réew mee ko moom nan la teg loxo maa ngi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di soñ le président Ousmane Sonko di soñ le président Diomaye ngir yàlla ngir yàlla nañ jóg Sénégal yi ñoom dong la ñuy dégg ñoom lañuy xaar bu nu am lu ñuy ragal wala lu ñuy tiit peuple bi ñoom la ñu àndal te peuple bi mooy souveraineté bi comme peuple yéen la àndal ngeen xam ko war ngeen a ñeme li ngeen di def bu leen ci am ak tiitaange maa ngi ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te naan asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience yàlla ñu buur yàlla sutural yàlla nañ buur yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi yàlla nañ buur yàlla suturaal pisan loo pisan loo jaa ngeen jëf jaa ngeen